olympique de Marseille euh, te bàyyee ko fii fan yële ñu génn euh, tey ni ma ko waxee kon dañuy waxtaanee keneen itam ku jara waxtaanee ndax li mu def muy Alioune Badara Diagne Golbert ñu bëri gënoon ko xam euh, ci wàllum théâtre bu ñu dalalee nag ci plateau Demb ak tey bi lamin Ndiaye kon dafay jaadu lool sëñ bi Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi. maa ngi leen di fay ñu am mbégte. waa di massawu ñooñu nga jot a lim. Euh, massawu seen njaboot euh, massawu leen ci réew mi euh, massawu leen ci béréb yi nga xam ne nii wax dëgg fa yàlla xamee woon nañ leen fa ak ci seen yëngu-yëngu ñu def fi liggéey bu am solo ci réew mi ma tuddee leen ñu bëgg seen réew. Golbert Diagne mi ñuy waxtaanee tey ci la bokk amoon nañu am nañu mbégte euh, dalal tey kon ci waxtaan wi alors euh, bu mooy euh, tàmbali xëy na laaj bu njëkk bi mooy kana doonoon Golbert Diagne ci li ci Lamine Ndiaye xam. waaju baax waaju amoon solo ca goxu Saint-Louis du Sénégal première capitale bu Sénégal nekkoon ku ñu ràññee ba nga xam ne nii boo tuddee Ndar dañ naan Golbert. boo tuddee golbeer ñu ne Ndar la ko taxoon nag mooy liggéey ba nga xam ni daan na ko def ci boolewu ci coow liggéeyal sa réew day commencé ci sa gox bokkoon nañu HDIS euh, ci benn projet bu ñu tuddee woon sargal Ndar hmm. defe naa ne waa Ndar xam nañ ko sargal bu njëkk bi Ndar am waa HDIS ñoom ñoo ko def

Euh, un engagement patriotique pour un développement local kooku moom Golbert def ko mutoon ba mu doon sëkk sëkk sëkk sëkk ñu ràññee ko moo tax lañ fa defoon projet ba ci ay yoxoom lañ ko wékkoon. kon euh, Golbert ci euh, présentation mu doonoon ki nga fi wax nii waaye dañu daan gis ci théâtre yi mu daan def. mu ci mhm. nuru ku tàng lool alors bëgg nañu nga wax ñu ci jëmm ji déjà ak ni mu doon dundee. Golbert xëy na loolu euh, li ñuy wax naan euh, intérieuru nit ak extérieuru nit ñaar ñooñu def ko ëmboon ba mu mat sëkk Golbert ni mu tàngee woon ci euh, biir théâtre bi du noonu la mel dans la vie mm. mës na doon raconter benn histoire bu ko daloon ndar mu demoon marché xam nga nag ko xam Golbert xam ni xel ni ceebu jën def ko fonk doon duggi Eh, mu doon duggali boppam. waaw mu ndeysaan mu tase fa benn jigéen ndaw soo xam ne nii eh, daf ko seetaanee neneen. Mhm. Eh, yëkkati jën ba mu jëndoon. dóor ko ko ci ginnaaw. ba yére yi mu soloon waaw deretal mës na ko bi waaye am na ñoo xam ne bii gëm nañ ko am ñoo xam ne nii gëmuñu ko xam nga nit moom boo nekkee ci zaahir. Mhm. lépp looy wax duñ ci seetlu bu baax duñ ci bàyyi xel. Mhm. nit dañ naan rek xëy na day day bëgg a may bës boppam déedéet mm-hmm. lu amoon la lu amoon la man dem naa ci ba waxtaan ak moom bés euh, ci loolu mm-hmm. munuma pourtant de njaay nit ñi gëmuñ ma mm-hmm. mais lu am la ba bi ma dellu see yëre ba dama ko simi ñu fóotal ma ko wax ko dara parce que dafa comprendre woon ni kii la mu doon seetaan moom la mu joué woon daf ko yóbbu woon ci àll boo xam ni ni euh, bu tax sama nag moom sax defe naa ni yor leneen dana ko dóor du du rek jën bi la ko yéene woon. ay ah na waaw waaw waaw parce loolu daf ñuy dal. Mm-hmm. ñun ñi nekk ci liggéey bi mm-hmm. man maa ngi nii dañ may wax naan ma euh, que dama soxor ci jigéen ñi dama soxor ci jigéen ñi déedéet rôle boo ko yoree dong koy mëtal ba mët sëkk nga def ci lépp lu ci war. Mm-hmm. te nag du lu ngay joué moo nekk ci yow. d'accord personnage la rek booy incarné. waaw mel ni bu mooy sol rek. nga sol bu vert bu ëllëgee nga sol bu jaune bu hmm. ëllëgee nga sol euh, bu pour euh, noonu la rôle yi mel ay personnage la yoo xam ne nii moom la ñu joué mais loolu noonu la mel parce que maa ngi nii joué naa fi góor jigéen euh, est-ce que dans la vie dañ ma gis ci mbedd def li góor jigéen gi di def déedéet bubu la woon bu ma sol bu ma ci paree simmi naa ko noonu la Golbert en fait meloon moom dafa xamoon te danañ toog étudier rôle bi bés mës nañ di waxtaan mu di ma nettali ne moom dafay dem ci seetoom bu euh, jéem a seet rôle biñ ko wax ba xam dëppoo naag moom ni xelam lim ko may xam nga danañ toog li ñuy wax naan dramaturgie euh, booy dugg ci pièce war nga ko def il faut nag nga étudier ko bu baax a baax a baax étude boobu moo tudd dramaturgie ci biir métier bi. Mm. donc loolu daan na ko def moo tax mu daan dugg bu baax a baax a baax ci rol bi. ni mm-hmm. muy joué théâtre bokkul ak bu nekkee acteur. Mm. nekk dans un film foofu acteur la mais théâtre bi ñu wax tu es un comédien y a une nuance y mm. une différence bokkuñu. donc loolu aussi tamit def ko xamoon ba nga xam ni buy jouer film da koy doser. Mm-hmm. buy joué théâtre théâtre xam nga rôle bi ngay joué nit ki toog la seetaan parce que théâtre la euh, dina dugg ci explication yooyu tuuti mm-hmm. nit ñi buñ gisee télé téléfilm dañ ko dañ koy wax théâtre mm-hmm. xam nga xam nga euh, foofu dafay yóbbu nit ñi ba nga xam ni des fois ñu ne nit ki day dafa ëppal mm-hmm. ci li muy def du ëppal dafay jouer théâtre mais théâtre boo koy def à la télé ñu di la filmer déjà ça devient un téléfilm. Mmh. ça devient un téléfilm téléfilm gis nga le le film tourne en nombre de frames frames moo gën a gaaw seconde. d'accord bu fekkee ni woon waaw moo gën a gaaw seconde. Mhm. donc loolu il faut nit ñi ñu jàng ko xam ko xëy na du kiiwu émission bi. Mhm. mais bu fekkee ni woon tey dugg nañ ci nañ leen expliquer nit ñi gën a xam mu nekk loo xam ne nii nit ñi war nañ ci yeewu. Hmm. ba nit ki suñ ko gisee muy jouer théâtre bu ëppalee. Hmm. Euh, war nañ xam ni kii comédien la. parce que noonu la def il a l'impression d'être de d'être devant son public hmm. comme ça assis en train de le regarder en live mm -hmm. donc euh, il faut que appuyer ci gestes yi tuuti tuuti ba convaincre nit ki lay seetaan. Mhm. lool pour ñëwaat ci suñu sujet di Golbert euh, remarqué woon nañ ko ci moom on se rappelle télé euh, théâtre bi nga xam ne joué na ko euh, par exemple ak Marie leen jàlloo donc mhm. foofu da ngay foog ne yow li ngay seetaan nii dëgg la. donc ñu bëri xëy na image boobu la ñu garder ci moom. ba jàppoo tàng gi ak xëy na yenn yeneen mbir. waaw xam nga dund dans notre vie normal mhm. en tant que sénégalais. noonu donc euh, euh, on fait trop de gestes on s'appuie sur les gestes bañ naan nit ki xanaa lii def ko mer daf ko ku ëmbal. daf ko ku mhm. kuy fekk yoo il est en train de jouer. Mhm. gis nga ci génnee génne na ci set wet te maa ngi fort ci weewu nag ne bu mu sànnee duggee loolu bu génnee après ki mu ki mu kiwil sa partenaire am. bi mu doon mhm. jeune. day ñëw baalu ko àq ñëw daan ko bon jeu bi la woon ak yooyu donc loolu rek boo Euh, vraiment il savait ce qu'il faisait mm-hmm. euh, te nekkoon na koo xam ne nii malgré que connaissance am euh, kii na ko ci liggéey na ko ci bu baax a baax a baax boo xoolee rôle yi nga xam ne nii ñoo ngi ko ci gis muy maam Sey muy mm-hmm. moom ak Marie leen ak ku mënti doon man xool na ko ne nu mm-hmm. ba yàgg sama ni waaw kii moom góor gi moom xanaa def ko mere woon <laughs> wala nenn comme nenn comme daf ko mere Euh, yooyu yëpp pour wan la ni théâtre lañ doon def ñoom. Mm-hmm. théâtre lañ ñu def di ko dund. Golbert ku ko xam xam ni xëy il respecte tout le temps la règle des trois P. Mm-hmm. pensée parole et plastique. Mm-hmm. loolu mooy définir le théâtre. boo ñëwee euh, ci téléfilm yi. kooku c'est autre chose. moo koy définir par exemple euh, le sentiment et l'émotion ñu tuddee ko la dianétique ci nasaraan. Golbert ci li nga ci xam euh, lan moo ko dugal ci théâtre Lamine Ndiaye. ah Golbert day man dama xëy rek benn bés dégg ko. Hmm. nit nag boo ko déggalee dara dangay xalaat lu rëy ci gannaaw loolu. Hmm. xam ni kii bu fekkee ni dem na ba mët li mu doon ci biir théâtre bi am na fu mu ko toggee am na fu mu ko jëlee am na foo xam ne nii mooy ndorteel ba. ndorteel boobu nag man xawma ko euh, fekkewu ma ko euh, mais li ma xam ci moom mooy di dundam na mu ko daan jëfee man su ma ko xoolee dama naan kii am na fu mu jaar mm. c'est vrai que naturellement Golbert ko xumba la Golbert nit lu koo xam ne nii fu mu toog nit ñi duñu duñu duñu ñepp euh, dañuy ree ba bëgg a parce que na muy waxee ni muy jëfe am na sax ñoo xam ne nii dañ dem ba dëkkal ko foo xam ne nii dëkku fa wax dëgg fa yàlla ci jëfinam ak nekkinam toogaayam waxtaanam ak yooyu nit ñi nag fii Sénégal bu ñu la gisee ci ay wax rek duñ la sax xam mais dañ lay dëkkal foo xam ne nii dëkkuloo fa mais Golbert si ku ko xam xam ni ku am fulla la bëgg na ko ci nit fayda bëgg na ko ci nit euh, euh, dëggu bëgg na ko ci nit caaxaan daf koy dàq tout temps lu muy def du ca caaxaan da koy def dëggantaan loolu nag wuy suñu ko sax ci biir théâtre bi mhm. da nga koy xam ci moom xam ni nitu neen la mhm. parce que il sait rendre la joie quand il le faut il sait rendre la tristesse quand il le faut il sait il sait il sait mhm. euh, nekkoon na koo xam ne nii war fakal la macha allah li ma ràññewoon ci moom mooy dëgg ak jub foofu lu wéroon dundam boo ñëwee ci këram fekk noonu lay waxee noonu lay jëfee bëggul ñàkk fayda fenn bëgg na loo xam ne nii lu mu ŋànk mhm. mu def ko ba mu mën sëkk bëgg na xamit bëgg na tamit euh, lu mu nekk ñu xam ne xel ni lii Golbert nekk na ci du mhm. kafantoo parce que bu dëgg boobu nga xam ni moom la bëgg moom lay wane bërëb bu mu doon nit ñi ne dañ koy jaawaleeg na rek déedéet Golbert c'est la wax boo ko laajee ñu ko xam dëgg dëgg dëgg xam ni du jàpp dara ci bi mhm. mën na mer nag wala mu gaaw a mer xam nga en général nit ñi gaaw a mer euh, boo leen seetlee gëstu leen nitu dëgg lañu mhm. loolu daf ko bëggoon te dafa amoon importance ci moom waaye leneen nit bëggoon na boppam te it fulla ak fayda yëpp ci la ko weer alors ñu ñëw ci sa moom fan la jaar ak euh, xëy na lan moo ko sokkee damay ñëw ndar di ñëw ndar ba benn bés bi ma nekkee ci Sorano mu joué woon benn rôle boo xam ne nii euh, wax naa ko sànq euh, nit ñi dafa am luñ ma bàkkee waa ndar il paraît que am na ñoo xam ne nii dañ ci mer mais ku ñu wax dem si yàlla kolo euh, di xaritam kolo jaxate d'ailleurs sama mbokk la ndeysaan ndekete nit dina mere mbokkam te du ko xam mm. alors ci noonu bi ma ñëwee mënu ko man day eh, wax dëgg fa yàlla eh, ku ñu wax kolo de nee na fii ndar bu ma fi duggee danaa xam parce que rôle bi ma joué waa ndar melu ñu noonu te naam man duggewuma ko woon noonu c'est que découpage bi ñu defoon ak tour bi ñu defoon dafa tombé rek li ñuy wax naan tombé waral ay gaaf mhm. eh, trop c'est trop la ñu kii woon lañu ñu woon bon ci biir nag montage boobu Euh, nit ki sax dafa bind ndar situation bi ndar la ko la ko la ko féetalee donc mënuñu woon wàcc foofu ñun ñu togg histoire bi ama wolof ba pare ndar boobu ñu boole ko ci mhm. bi ñu ñëwee nag ci rol boobu Kolo Touré Kolo Jaxate menacé ci ma waxtaan ceeg moom mu ne ma ah waaye yow Kolo xanaa dafa xamul ne yow mi doomu ndar nga euh, ma ne ko déedéet xamu ko xam naa ni nag kii mu ne naam day ay mbokk ngeen de moo ne eh, yow Mouhamadou Diarra mooy su tur moom Kolo Jaxate lañ koy wax bu ñu seetee ba seet yéen bokk seen ba mu xor te it nekk na koo xam xëy na def ko wax comme ça. Mm-hmm. mais nekkul ci moom. kaay nga ñëw ci rajo bi rajo Teranga. Mm-hmm. nga ñëw waxtaan ceeg waa Ndar ba ñu xam ne yow noonu ku bëgg Ndar nga parce que saa yu ne. ndar nga fi parce que sa yaay ndar la la soqe ko sa papa ndar la soqe ko kii ngi dëkk Pomme de Terre kii gët ndar xam nga batlin sikki mhm. ñu wax nii sama maam la waaw te moom waa gën ndar la alors mu ne ma yow ngay doomu ndar yow eh, ndakaaru da danga fa juddoo rek mais dëkkoo fa fii nga dëkk parce que fii la sa cosaan nekk et effectivement ba ma jaaree ci rajo bi nit ñi di woote di woote samay cousine ak samay mbokk ak samay ñëpp di woote euh, foofu daal la ñu xamante kii mu ne ma nag saa yooyu ñëwatee ñëwal wax si fii ci rajo bi ba ñëpp xam ni ndar nga bokk ma ne ko incha allah man dama ko doon wooyee tons xëy na différence d'âge bi nekk suñu diggante taxu ko bari noonu lool mm-hmm. parce que du dix ans c'est moins que dix ans donc euh, loolu yëpp Euh, contribué na ci sama xamanteeg moom. Mhm. wax dëgg fa yàlla. Mhm. mu taxaw nag taxawaayu saa yu ma ñëwee ndar mu ne ma del ñëw fii ci kër gi. Mhm. ñu toggal la ceebu jënu ndar dégg nga nga lekk ba suur ma ne ko waaw incha allah. moo tax ba saa yu ma wàcc tee ndar presque presque damay def ndar yëpp suba su ne maa ngi xëy rajo ba teraan parce que moom moo ma ko wax. bu ko defee gars yi xajal ma une heure de temps yoo xam ne nii. Hmm. dañuy ñëw waxtaan gaañe di téléphoné ñuy weccoo xalaat ak yooyu mu nekk li liggéey boo xam ne nii liggéey boo bu am solo la dans la communication. Hmm. ma xam ne kii wax dëgg fa yàlla ku jar a la ku jar euh, xam la. Hmm. et il me le rend bien. justement ci Golbert Diagne journaliste laa bëggoon ñu dugg tuuti euh, loo xam ci moom ak ni mu doon doxalee loola mu daan def. waaw bokk na ci ci biñ nekkee rajo Ndar ñu bari tàggat ne leen man am na ci benn jarbaat boo xam ni sax fa la bokkoon muy benn benn moktar benn moktar benn waaw kooku sama jarbaat la. Mhm. ndax yaayam sama cousine la. Mhm. Racky Fall. nekk na sama directeur ñu koy ko jur bi ma nekkee eh, Sport FM. Euh, sama jarbaat beneen fekk na ma fa muy Eva Eva ci boppam sama jarbaat akkan la yaayam bi ko jur papam Racine Bay euh, ñun ñëpp pour te dire j'ai contribué vraiment ci famille boobu mm. parce que ni ma leen jëlee woon sama nijaay moom leen mm-hmm. bu ma daan ñëw vacances temps boobu maa ngi jàng à Saint-Louis seen mag sama yaay lañ ko tudde muy euh, Fat Fall mhm. Rati Fall mooy rakkam ñoom ñaar ñëpp dama daan tëdd nii euh, ñoom ñaar ñu tëdd nii sama wet mhm. seen papa ne ne ma yaay seen mag yaay seen góor bugguma kenn dugg fi de son vivant dafa fiiroon mu ne mu ne mu ne yow yaay seen jamin mhm. alors rek waay na nga fexe ba jàppal ma leen man am na un moment donné boo xam ne daf ñu ma euh, faral sa jàng foofu Ndakaaru nga ñibbisi fii Ndar hmm. nga continuer sa jàng fii Amadou la ma daan wax hmm. xam nga ñoom ku ñu tudde Mohamed Amadou lañ lay wooye hmm. Amadou ma ko naam mu ne ma rekk waayu fexeel ba boo ñëwee Ndar fii na fii di jaar di nemmeeku say jigéen fexeel ba loolu nga dëggal ko te xam ni ñoom yow la ñu am yow it ñoom nga am. Mm-hmm. ñu ne ko incha allah ñu jaay Momar Fall moo leen jur ñoom ñaar ñëpp te ku ko xam mu ngi doon liggéey service des eaux. Mm-hmm. eau et clair lañ koy wax. Mm-hmm. waaw nekkoon ci nekkin bu rafet ak yooyu wax dëgg fa yàlla dara yàqoo ci sama jarbaat boobu nag. Euh, benn moxtar euh, noonu la ma ko doon joxee moom it bi nekkee ci jaar jaaram fii fu ci nekk. Mhm. jabaram yi man la daan taxawal ni ma nijaay ma ne ko am ah, ni ma yaawee ñaanal yaa may jiw représenté foofu ma ne ko incha allah xamal ni ci man am di nijaay mhm. loolu bokk na ci li nga xam ne nii aussi tamit euh, maa ngi ko ci gërëm moom Golbert bari na daal xale yoo xam ne nii tey bu ñu bu seet seen cursus mhm. euh, bokk na ci Golbert mu formé leen ci mbiru journalisme euh, nekkoon ci rajo ba nekkin bu rafet ba ci création seen troupe boobu euh, nga xam ni ku jiite di sama xarit sama soppe euh, gise euh, man dama daan dem Ndar du ma am jàmm dama koy laaj golbeer Golbert ne ma pourtant mi ngi fi di mais dana ko wax am na une fois ñu daje mu ne ma maa ngi togg loo xam ne nii yow golbeer am ngeen ci liggéey bu mët sëkk bu am solo bu boo xam ni nii di ngeen ko def ma ne ko incha allah danaa ko mëtal ba mu mët sëkk en fait bi ma marqué avant son décès mooy bi dajee ci wiri wiri mu sol benn ensemble boo xam ne bu rafet la dama ko wax ne ko tissu bi day tissu bu rafet la mu ne ma incha allah di nga ci di ci am mais bi mu delloo ndar boobu Cees liñ nekkoon bi mu delloo ndar rek daf koo jënd yónnee ma ko. Mm-hmm. man ma ñëw à la Médina gis tissu bi ñu jox ma ko. ma ni waaw lii kan moo ko fi ñu ne ma Golbert ne ko effectivement moom la soloon. mais man foogoon naa ni day fo rek day kaf. Mm. mais ma jël ko ñaw ko ñaw bu nga xam ni nii comme ni mu ko defee woon. Mm-hmm. parce que ñaari xob la ko defoon ma ni ma ñaw ko ñaw ñaari xob. kooku moom maa ngi ko yore fii te ce sera un souvenir boo xam ne waaw mhm. incha allah bu weesoo wiri wiri am na yeneen seen yu ngeen daje euh, scène yi ñuy daje je me bi ñu demee France te waroon fekk euh, Ablaye Wade ak euh, le président juuf daje UNESCO kooku moom bokkoo nañ seen boo xam ne ni dañ ko liggéey mais jotuñu joué foofu parce que ñëpp nag ñi fa ñëwoon ñëpp ñun dañ doon euh, kii si xaar ñu mm-hmm. kii mais malheureusement timing bi euh, mayoo ko woon alors ñu jóge fa daal di ñibbi si Ndakaaru nit ñi raconté lu nekk naan ñu un million dañu jox kenn ku ci nekk ci mu ne un million lan xanaa ñi dañu dof <laughs> ba <laughs> ndekete cent euros la mm. <laughs> mu ne Njaay lii de dana barkeel comme nit ñaa ngi wax naan un million la. Mhm. nañ leen bàyyi ci loolu rek. dañ mel ni ku yore un million bi. Mhm. Eh, ndeysaan bu nekkoon ku lewet. Mhm. Euh, waxtaanam ne woon leen ko sànq kenn du xëppi. alors euh, dañu bokkoon ci même hôtel hôtel Iris. ñu daan bokk ànd jël euh, car bi dem restaurant la ñu nekk UNESCO yëpp ñu ñaar ñoo daan ànd. guddeeg bëccëg ñooy toog waxtaan waxtaanandoo di échanger en profondeur euh, loo xam ne ñun moom la ñu wax euh, nit ki waaye kenn du ko wax nit ñi euh, loolu ma respecté ko ci woon carrément mu jël ma def ma ci boppam def ma rak wax dëgg fa yàlla ma ànd ci moom mm-hmm. mu nekkoon koo xam ne nii loolu daf liggéey lu mag te joué lu mag ci suñu dund. dañuy faral di wax ne nit bala nga ko xam nga fekk ko këram. Golbert ci biir njabootam euh, naka la meloon. Golbert euh, ànd naa ak yiw ak njëkk ak teraanga ci biir njabootam. man de ci li ma fekkee dafa rafetal ba dugg suuf amul woon lenn lenn loo xam ni nii wax dëgg fa yàlla man fàttaliku naa ko ci li mu dund ci naqar ak njabootam. au contraire da daan ñaax sax yow mbokkam ci bëgg njaboot ku ko xam-xam ni ku bëgg njaboot la na mu loolu dafa wuy si ba nga xam ni ci troupe bi mu bokkoon troupe Baareligo wax dëgg fa yàlla def ci joué lu mag parce que ku ci am problème moom ngay diisoog moom mu nekk moom ñoom ci jàmm ak salaam ba pare nekk seen conseiller nekk seen nijaay nekk seen magu bopp comme euh, ci gëju dégg dana la wow wala mu nemmeeku la buñ daje répétition nag moom kenn du xippe euh, te it nag nekkoon na nit ku bëgg a bokk waaw lu partage il le savait euh, nekk nu koo xam ne nii tamit euh, diine moom fu mu ko fekk dañ koy jël waaw parce que ni ko doon doxalee dëgg googu nga xam ne nii ñaar la moom dëgg ak jub te mus koo wàcc loolu la diine gën a bëgg te ni mu ko daan defee def ci daan ànd ak kadar Golbert doo ko woo mu ci lu ñàkk fayda bu mu fekk si la woo ko ci euh, am fayda mu ñëw fekk si la daal la màggal nag te bu ñëwee poosam du ko fekkee bu ñëwee wax dëgg fa yàlla eh, nekkinam du ko fekke d'ailleurs sax mbooloo bu ñëwee bokk fa rek ñu woo ko fa mu xam ñu invité ko bu jaree jël micro bi si meeku na jël micro taxaw mekk maître de cérémonie mm. dirigé Euh, ba mu nekkee ndar aussi tamit euh, wax dëgg fa yàlla créé na woon benn émission boo xam ne nii moo doon rassembler tout Saint-Louis muy ndar ràñña mm-hmm. nga xam ne nii ku am problème am dina dugg ci biir émission bi woote ko mm-hmm. fii de amul ndox fii de démb courant bi takku fi mm-hmm. bu mu woo kilifa ba wax ko ne ko ah yow de lii day euh, courant takkul tel gox ndox amul tel gox yooyu yëpp daf ko daan jooytul askan wi kon euh, loolu nga xam ni c'est un rassembleur nekk na maire te yàlla moo ko fal maire boobule euh, maire boobu yàlla fal ko mu ko doon liggéey ci askan bi te gis nga booy seet suñu borom na nga ko seet ci biir nit ñi réeru ci de loo defal nit mhm. incha allah suñu borom moo la koy fay mhm. parce bokk na ci li mu gën a bëgg mooy nit bi mu sàkk Euh, mu nekk aussi tamit loo xam ne nii moom la ko ñëpp di témoigner mosul fàtte ëllëg ñàkk fàtte ëllëg mooy lan xamoon na ni euh, fala budd fii lay mujj mhm. moom xamoon na ko bu ko nit ñi xamul it xamoon na ko ba loolu def ko doon liggéey moo tax bu musaanu dugg armeel ya ni muy toife ni muy seetee néew yi ni muy ñaanalee néew yi mhm. yow da koy fekkee dafa ni événement ci moom mhm. looloo tax mu créé woon loo xam ne nii defe naa ni waa Ndar duñ ko fàtte mukk mukk mukk ila yow mi diini mm. nga xam ni ziar bu mag la daan def daf ci tàmm woon nag weeru koor mm. nga xam ni day tànn bés bu rafet boo xam ne nii day woon Ndar yëpp ñu dem fa mu jéegi affaire bi dix personnes la woon mm-hmm. mu jéegi une centaine fekkee nañ ko ba nit ñi jóge ci goxoo gox dem wuy ko mm-hmm. loolu moo lay wan ni que c'est un rassembleur que euh, euh, jaamu na yàlla démb booba tey dëkkul. Mhm. ba nii mu génne àdduna yàlla na ko kaamil yooyu nga xam ne daal na leen ko wàcceel foofu. Mhm. teeru ko foofu yi nga xam ne nii foofu la euh, nekk. Mhm. yàlla na ko yàlla def jëmm suñu borom jëmmi Seydina Mohamed. liggéeyal na àdduna liggéeyal na àllaaxira kooku nag ki ko mën kenn dong la. ci yàlla ki mu ko joxit kenn dong la muy mm-hmm. Golbert mm-hmm. man day su doon sama sago place Faidherbe boobu nga xam ne nii c'est à côté de sa rajo mm-hmm. moom lañ koy tuddee fàtte Faidherbe c'est vrai qu'il a joué dans l'histoire une place importante dans l'histoire kenn mënu ko fàttee Faidherbe boobu mais nag tey dafa jot wallahi suñu amee édifice yu mel noonu ñu tuddee ko suñu waa dëkk ngir seen liggéey. Mm. Euh, bind ci suuf nag bokk ci réew mi liggéey sa réew ko euh, liggéey sa ko gën. Mm. parce que noonu la def ci gox goxam boobu slogan boobu man noonu laa ko tuddee noonu laa ko gisee. Mm. wax dëgg fa yàlla Golbert moo xam place bu koy tuddee ci ndar ne serait-ce que pour sa mémoire parce que œuvre na ko. loolu ko ndar mën a delloo. Mm-hmm. njukkal gi loolu la ñu xam ni il faut travailler comme Golbert il faut agir comme Golbert parce que nag un engagement patriotique pour un développement local hmm. suñ ko commencé woon doon def loolu yi nga xam ne ñi tëraloon lañ ko te bu eh, yaakaar naa ni ndar day kenn du wax développement alors euh, ñu des euh, ba tey euh, ci Golbert lamin Ndiaye keroog bi mu génnee àdduna bokk nga ci ñi nga xam ne dëkk nañu leen suñu micro. ñu daal di mm-hmm. indi ay seede. waaye li mm-hmm. ñu marqué keroog bi nga xamee ni laaj nañ la sa seede ci Golbert. mooy jooy yi mm-hmm. nga jooy muy loo xam ne itam jàpp nañu ne fu sori la jóge ci yow. lan la sa xel dem ci Golbert ba tax keroog nga xëy na am émotion boobu. xam nga Golbert dama ko jàppee woon mu jéggi comme sama jur te sama yaay ngi génn àdduna 1957 dix ans après c'est-à-dire en 67 partait mon père donc koo téye comme say jur jotu leen euh, xam bu baax mu génn àdduna ak fi ngeen jot a jaar euh, yaakaar naa ni sooy waxtaan ci moom rek sa xol day tooy. Mm. te seq nañ ko li image bi njëkk ñëw sama bopp dama ne ay waay sama waaja dem na waay waay warul woon dem parce que boo leen fàttali ko ñu doon wax le 4 mm-hmm. le 4 ci weer wii di ñëw mm-hmm. incha allah bu corona bi kiwul di fàttali waa Ndar ne leen bu leen kii na am seen fulla ak seen fayda ba bés bii na ko jàpp mm-hmm. pour ñaanal seen i néew liggéey ci ñoom loo xam ne nii na mët liggéey parce que ñi ngi suul ca Caaka Njaay mm-hmm. euh, yaakaar naa ni bari nañ te am na ci ci ñoom ay waliwu yoo xam ne ñi nga tëdd ci suuf sax mm-hmm. euh, ma yaakaar nii rek ni loolu ñuy wax lu amoon solo la te nit ñi balaa ñu koy xam nañ dem ba ca kanam mm-hmm. di ni waxoon artistes yi nga xam ne tey ñoo yëngu ci milieu théâtre euh, lan nga jàpp ne war nañu ko xool ci Golbert euh, ba di ko doxal bu dee nekkuñu ci woon. na mu daan defee rek te umpul kenn sori nañu ndar la ko daan def mais ndar mooy Sénégal parce que bu ñu fàtte ni ndar moo njëkk nekk capitalu Sénégal ku liggéey ci ndar dara mu ngi mel ni Sénégal nga ko defal kon la mu doon liggéey ngir ndar Sénégal la ko defaloon te ku xam Golbert xam ni c'est un grand patriote wallahi c'est un grand patriote ku bëgg réewam la bëgg sa gox mooy bëgg sa réew parce que booy bëgg sa réew da koy tàmbalee ci sa gox liggéeyal sa gox bu ñëpp ràññee ko ndar xale yi gën a tuuti boo ne ne golbeer rek dañ lay ñëw omat la ba këram kon nag kooku am na lu mu doonoon ci ci ci Sénégal marqué na it Sénégal bu baax a baax a baax ci jëf jubóole bëggante eh, ndeysaan maa ngi fàtt ko bu maam sëy génne àdduna ñu dem ko def mbooloo boobu arkot maa doon président bi alors ñu am di ndar gis nga ba ñu ñëw dafa mel ni ñun la doon eh, kiiwal suñu paas dafa yëkkati lu ma trente mille teg ko sama loxo ne ma jox ko gaañe nga wax leen ni laa ko joxe eh, dama ne woon sax loolu naa ko denc parce que nit ñu dañuy yaakaaroon ne man mii maa ko jëf waaye tey euh, àddina dox na dox na dox na ba tey lépp luñ ko xamal ci lu baax mu jëf ko dañ ko war a wax parce que lu koy jëriñ la foofee mu tëdd Golbert li mu bëggoon yëpp yëpp yëpp weesuwul ci nit génnul ci nit te it nekk na loo xam ne nii lu ñuy jàng ci moom ni da bëggante te bañ di bañante. Hmm. parce que àddina lu gàtt la loo fi jëf rek eh, na fekk lu baax la. loolu daal hmm. te si buñ ko buñ ko mbooyee. Hmm. yaakaar naa ñu daañu sori parce que li ñuy jëwee naan ñu bëggante wuñu suñu biir. ñuy eh, wuñu jàmm dañuy xeexante dañuy nangam nangam ak loolu de ku xalaat golbeer rek waroon nga war nga wàññi sa xadar boog jéem a def parce que jéem mooy tax nga mokkal ba. bu ëllëgee. defe naa ni tàmm ba nga xam ne moom nga mokkaloon ci jéem euh, moo lay wóosi. Mhm. la muy jëf daf ko tàmbali ci jéem jéem ji muñ jéem dafa metti mhm. muñ googu mu doon muñ rikk waaye na ko artiste yi muñ muñ euh, mooy euh, te gàllaaju nit mhm. muñalente tamit bokk ci keroog yaa ngi euh, fàttali aussi ni Golbert théâtre bi daf ko defoon aussi euh, jumtukaay ngir participer ci éducation ngir participer ci yar ba ci sax peut-être xiir ci jaamu yàlla ak euh, yenn saay ni mu doon jëfee loolu itam mënees na kaa jàpp ci artiste gi mu doonoon. tout à fait parce que xam nga théâtre sorewul ak diine li mu santaane diine li ko fi tax a wàcc ci àddina mooy. jubbanti jikko nit théâtre bi dañ ko jël pour euh, euh, jubbanti jikko yi kon loolu aussi tamit jar naa jàng mënoo nekk ci théâtre bi bëgg jubbanti jikko yi ba pare di mel na leen wala euh, lu théâtre bi laaj aussi tamit nu nga ko jox àqam ba mët sëkk ngir looy wane di ko wax Eh, na fekk nga kii ko eh, neen la sangul sa taar la bëgg mm-hmm. waaye kenn gënu koo bëgg taar moom mii wax naan sangu leen sangu leen sangu leen mm-hmm. eh, Golbert ku ko xam-xam ni wékku woon na foo xam ni fu dëggu la mm-hmm. jub ak dëgg te loolu yëpp ci diine la bokk te it nitu je veux dire le comédien en général sorewul ak diineem soriwu ko looloo tax ma waxoon loolu que ni nañ ko xool jàngat ci leneen leneen leneen leneen dana baax lool dana baax lool pour artistes yi pour askan wi pour keneen koo xam ne ni yaa ngi dugg ci métier bi wala bëgg métier bi foog nga raxas sa parce que li ngay yenu ci personnage il faut être vraiment un comédien un vraiment pour mën yenu personnage yooyu da nga ci gis ñoo xam ne ci tubaab yi buñ ci génnee ci personnage yooyu dangay dañuy toog lu mat une semaine léeg-léeg diir boo xam ne nii rien ko pour raxas loolu mu génn ci ñoom parce que dëkkul ci moom dégg nga booy toog ci ànd day fekk ànd ba mët mët la xëjoog yow euh, c'est important pour le comédien. Mm-hmm. alors Golbert lan nga xam ci moom Lamine Ndiaye loo xam ne xëy na nit ñi ko doon seetaan ak sax ñi ko doon côtoyé nii naanee wuñu ko ndox mu xam ci liggéey bi wala ci jikko ji wala ci jëflante geeg nit ñi. waaw damay fàttali ko rek li ma waxoon ci njëlbeen bañ koy dóor jën boobu mbuum mi di takk dañ ko foogee woon leneen xam ni jikko boobu bàkkee nañ ko ko ba kii dafa tàng lool ci maam Sey dafa tàng ci Marie Madeleine ci Néné Komé Golbert euh, dans sa vie de tous les jours nee naa leen sànq que c'est un enfant doux mën nga ko ñëw fekk ko mu nekk si yitte yitte yitte ba nga ni lii lu mu doon da ngay yaakaar ne sax yitte ba yitteem la fa ndax def koy mbuboo gis nga dans notre projet la bi ma doon wax HDIS mm-hmm. am na journée boo xam ne bu ñu réservé woon euh, l'éducation mais Golbert bu ñëwee taxaw ña fa doon nekk maître kilifa ya ñëpp day jébalu ci ñoom jox leen seen cër seen wàccuwaay ba pare nag fonk leen amul kenn koo xam ne di nga ñëw toog te waxul la li mu xam ci yow mm. waxul la dëkkal la foo xam ne fu rafet la te léeg-léeg saman xam naa ni xëy na dana ci yokk ay affaire yëpp pour rek euh, taaral rafetal sa sa jëmm loolu dafa baax ci kii nit ñi waxante jàmm waxante bëggante soppante di jiyante jàmm euh, loolu daal wax dëgg fa yàlla fonkoon naa ko ci lool lool lool bokk na it yooyu ma xalaat yëpp jooy bi ma doon jooy mm. parce que mënuma woon wax d'accord am na solo alors euh, xëy na fi ñuy jeexalee euh, ba tey ci Golbert Diagne mooy mm-hmm. euh, loo xalaat ni itam tey askan wi war nañu ko bàyyi xel lool ndax faral na nañu bu ñuy waxtaanee nit lim ay jikko ci tënk ndaw yi loo bëgg ñu jàpp ci Golbert ndaw yi day roy ci Golbert mooy rek fàttaliku yi mu daan def démb ak bërki démb du lépp nag lañu mën fàttaliku nit mën na ko attan déedéet il faut golbeer Golbert vraiment ci jikko euh, dafa am ñett yoo xam ne mooy résumé nit te golbeer daf leen euh, raxas ba ñu set euh, yàlla dénku ko nit muy ñetti xëyi xel xalaat ak xol nee nañ xel xalaat teen lañu xol ci lay root foofu lay këmbalee wax la ju tënku ma bëggoon nag ñu tekki ko ki ñi xam dëgg dëgg dëgg li may wax xam ne ni xel xalaat teen lañu xol ci la war a root mhm. lépp looy def na ko xalaat looy jëf na ci xel bi bokk pour que xol bi nangu ko moom bi ñaar ñu liggéeyee ba noppi mhm. wàcce ko ci xol xol bi nangu ko jëfee ko mhm. ngir jëf rafet loolu daal laa leen di dénk wax la di ëmb nag nañ ko tekki ci jërëjëf Lamine Ndiaye amoon nañu mbégte lool dalal la ci waxtaan wi euh, ñeeloon njukkal li nu amoon yéene delloo ko Golbert Diagne nga moom mooy sekk ngeen loo xam ni war ngaa mën a indi ay seede ci moom euh, ngir ñi ko xamul woon xam ko waaye jubluwaay bi rek moo doon delloo ko njukkal waaye fàttali ko ñu lay gërëm bu baax a baax euh, ci li nga doonoon sunu gan ci Demb ak Tay. jërëjëf yéen tamit waa réew mi FM maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax boo leen ma soxlaa rek je suis disponible. incha allah jërëjëf kon mbokk yi mu doonoon waxtaan wi ñu sekkoon ak euh, Lamine Ndiaye euh, nekk artiste comédien jëflante ak euh, ndem si yàlla Golbert Diagne ci lu bari mu nekk itam ci gën a disponible xëy na ci ñi ñu mën a waxtaanal ci Golbert ci jamono ji ñu toll ndax xëy na am na ñenn émotion jàpp na leen jàpp goo xam ne mënuñu caa wax kon ñu daal di wéyal émission bi ànd ak Ouleymatou Diallo ci portrait di nataalu Golbert bi nga xam ne jotoon nañu kaa def bi mu mu génne àdduna daal di itam toftal ci ay kàddu di ay passage yoo xam ni euh, mu ngi jóge ci yenn théâtre yu mu jot a joué mu marqué lool euh, nit yi ngir fàttali ko ko euh, ki fi jóge di Golbert dellu di ko jaale mbokk yeeg xarit yi di ko jaale aussi sunu natango Malal Junior Diagne bu RFM mu nekkoon wayjuram kon ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ci démb ak tey Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi feggoo ak jaawo jàlloo ci Golbert Diagne am na ab carrière gu màgg ci wàllub artiste waaye tamit ci wàllub tasub xibaar ci ay nag at yu bari Golbert Diagne ñëpp xam ko ci mën a reetaanloo nit ñi waaye tamit di mën a yee nit ñi ci ay kàddu yi nga xam ne daan na ko yëkkati jëmale ko ci société bi waaye tamit ci théâtre yi nga xam ne daan na ko amal loolee nag di dayoom daal di wër Sénégal ak yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Afrique moom moomee di Golbert Diagne nekk koo xamante ne dafa màgg loolu ca diwaanu saint bu mag boo xamante xamante ni taxawal na ko fa den nag gouvernance bi ci immeuble yi ñu naan Rogna ca place Faidherbe ñaar fukki at ñett muy diir gi nga xamante ne rajo boobu di Teranga FM bu Saint-Louis teg nañu ko ca diwaan ba loole amoon ci atum 1996 ci njiitalu ki nga xam ne moom mooy Alioune Badara Diagne Golbert nekkoon njiital troisième chaîne RTS bu ñu daan woowee Voix du Nord gannaaw liggéey gu mucc ay bu kenn dul natable bu réy bi nga xam ne defal na ko réewu Sénégal moom Golbert Diagne mu daal di jël retraitam taxaw mobiliser ay fon ngir saa su ne baatam di jib ci loo xam ne dafay jëmale réew mi kanam ba tax na am na émission boo xamante ne daka daan def saa su ne ci rajoom boobule ngir yee askan wi waaye tamit xamal doomu ndar yi ni ñoom kese ñoom ñoo mën a indi développement ci seenub diwaan mu daan nag wax lu bëri dëkk si dëkk bi defar dëkk bee ko gën mu doon ñaax nag ndaw yi ci wàllub développement ak am jom moom taskatu xibaar bi nekk tamit comédien bu ñu ràññee may na ay ndaw yu bëri ab xëy tamit formé xibaar yu bëri yoo xam ne tey ji la ñu ngi leen di dégg fépp ci Sénégal Golbert Diagne at bu nekk daraan amal jàngub alxuraan ci cimetière yu Mahmiyal bu Soor Cem ak Càkka Njaay bu Guet Ndar événement boobule amoon daye loolu ba tax na fépp la nit ñi daan jóge ci réew mi di utali Saint-Louis ngir fekkee ko bëgg gi nga xamante ni bëggoon na ko diwaanu Saint-Louis ba ñëpp xamal ko ko tax na saa su ne daf ko doon aar di ci jibal ay kàddoom ba taxoon na demoon na ba nekk maître de cérémonie boo xam ne képp da ko ciy xalaat di ko ci woo ba dara Diagne Golbert bokk na ci ñeent fukk ak juróom benn dignitaire personnalité yi nga xam ni am nañu ordre du Grand Croix et du Mérite ci weeru décembre atum 2015 te njiitu réew mi Macky Sall tappaloon leen boobu lépp raaya niki tey nag génn na àdduna ci atum juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent gannaaw ab feebar bu yàgg boo xam ni tëral na ko mu ngi génn àdduna nag ca hôpitalu diwaan bi nga xamante ne moom la mës a bëgg di diwaanu Saint-Louis. la laajoon yaay kan loo koy tontu. Euh, may Alaaji ba Badara Diagne ñu may woowee golbeer doomi jëm si yàlla ajaratu Fary Lobé Ndoye ak Malal Diagne suma baay euh, sët ci Fatou Kébé Fall ci Ablaye Sadag ci famille moo di Fabal Alassane ak Paate ci sama wàllu baay doon doomu ndar ñu may woowee nag golbeer kon bu ma la déggee ku xam sa bopp nga danga nga mel ne yaa ngi tagg sa bopp. waaw ku xamul sa bopp da ngay réer. Hmm. te koo gis dafa ni moo la gën nit boo bëggee am fulla dangay xam foo soqi ko. Hmm. xam ñana jur. xam ñooy ñan ñana leen meññ. mooy tax da fonk sa bopp ba doo nangu tuuti ci kanamu kenn. Hmm. gannaaw rasulillahi sallallahu alayhi wa ku ne ndar ni maam maam moo la yar am danga ngaa xippee ci sa kanamu ñaari waajur waaw sama ñaari waajur xippee naa seen kanam mais sama maam moo ma yar sama maam Fatou Kébé Fall moom moo yar ak sama benn wujju yaay bu ñuy wax ci bu jañ géey dëkk géttu ndar ak sama benn mbokk boo xamee ni daf ma daan jële ci sama maam di ma yar di ma tette may màgg mu di Absa Gaye ak Ahmed Gaye jëm si yàlla ji waaw ci kër Pauline Diak milieu boobu daal fa laa meññee mais jar bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sama maam Fatou Kébé Fall euh, booba ana yaay ak baay ñoo ngi ca kër ga ndax sama yaay moo doon présidente de cuisinières de Saint-Louis à l'époque coloniale bu yeewoo def li mu war a def ci kër gi yëpp bàyyi xëy na samay sœur di ko àggale moom day dem liggéey mais laata muy liggéey sa maam dana ñëw jël mu yóbbu sa papa it nekk ci liggéeyam donc papa yaay ñoo ngi fi waaye maam moo ma uuf. <laughs> Euh, loo fàttali ko sax ngone ku léej ku timide wala gone gu maamum gëmee wutoon wala boog ndax say waajur seen loxo jotoon na seen gannaaw. Euh, samay waajur euh, alhamdulilah rabbil aalamiin sama yaay de présidente la woon ci cuisinière yi nekki ndar daan am salaire bu baax à l'époque coloniale di liggéey tubaab bi ñu koy fay sama papa di politicien di commerçant di itam éleveur ñaq jëriñu rek la xam euh, ci question bi nga jëkk dugg euh, maam mooma yar ma doon nag ku mu yàq ma wuyu tur bi Alioune bras armé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam foo déggee xeex ci loolu rek man la kon sag ndaw kon mën a xeex amul lu amul amul lu ma deful ci ndar foo déggee attelé rek may xeex yaa daan gañe am dañ la daan gañe ah daañ léeg-léeg ñu dóor ma léeg-léeg xeex noonu la tey yow sa morom waaye li ci ëpp ah maa daan dóoree nag waaw maa daan dóoree xeex rek hmm. ah, xeex rek xam nga ku juddoo loolu mon fils hmm. nu yaree la génn nar nga màggi tee ñi génn foo jar lij te da nekk Tarzan hmm? Tarzan ngay doon mi ñuy dégg ci film bi waaw man bi ma jógee génn naa lu dee lu ma tëj jigéen ma ñëw fekk samay frère foofu dañu ma daan woowee Tarzan tool bu am fu kookay nekk dinaa ko yëg sàcc ka ku ji sa suraab dinaa ko lekk sàcc ka jaayi ka yàq rek laa fa nekk loolu ci daan fekk ah dara leen jàpp mu dóor ba mu bëgg dee yóbbu ma sama papa mu dóor ba mu bëgg dee waaye bu ma génne demaat il faut que jeunesse se fasse mhm. loolu la euh, ku tudd ndar ne daara euh, ndax jaar nga ci daara yow jaar naa ci ndax bi ma amee juróom benn at loolu mu jox sëriñ Baye Mbay ca koñu kaso ba kooku moo ma dalal baax bi ma demee ba tollu wàllu ameyato yooyu sama nijaay sama grand frère yaay <laughs> inspecteur principal des post moo nekkoon Mauritanie à Nouakchott di seet ma fa yóbbu ma ataar <laughs> falaa jàngi alxuraan bi ma dellu seen nu jox ma Ousseynou Sarr ca zawiye ba moo ma wàcce jox ma sëñ Amet Diop ca loola ma tëri ak kër sëñ Mamour Ndiaye am nag maam joo xam ne xaafisul xoraan la fi may waxee nii doomam mooy imaamu rati bu dëkk ba moo di El Hadj Oumar Diallo jëm si yàlla ji. waaw doonoon maam ak xarit. ci man kon euh, rëccu ma ca dara. di meññeefu ku mel ne Youssou Diallo bu ma. waaw Youssou jàll mhm. kooku ma la wax mu ko jur. waaw parce que Youssou euh, ndongo daara la itam. Mhm. waa Ndakaaru yi dañ koy seen nii mu dem rek waaye méfie-toi de l'eau qui <laughs> Euh, loo dund ci daara ji loo fàttewul. Euh, am na ci nag loo xamee ni moom daf ma marqué ci daara ji ah. Mm-hmm. bi ma jógee Atar ba dellu si Ndar ren ma jox Ousseynou Sarr te zawiye ba mm-hmm. may tari gag. mu gàgganti ma ñaari yoon ma gàggati moom infirme la woon mu yóotu ma ba mu ñëw rek mu képp ma ci diggante ñaari tànk yi kaatama. Mm-hmm. carte bi saf na benn moodu saf boo xam ne mosuma gis loolu ci àddina ma bëgg dee xamoon may def ma làmbaatu nii rek ba taj benn aliwa rek nit ko tëll ci bopp rek mu xam hmm? fa la turu bi jóge Golbert Diagne gi ñu lay wooye waaw foofu la jóge fa la la toppee waaw fa la ma toppee parce que sama papa dañ ko daan wooyee Golbert mais biñ ko ximmalee ni ko lu la dal ku la def nii mu ne Golbert mu dóor aliwa foofu la ma Golbert bi toppee mu mujj def kersa xam naa sa digg moom nga xaañ sab sëriñ nag moom comprendre na ma parce que pédagogue la. pédagogue ba ci nangu ndongo bu xaañub sëriñam. waaw ma bu ma dellu si dana ma ñàdd am na ñoo xam ne dafa naan jàppale di ngeen ñàdd ka bu mu dóoree ba mu bëgg rek beneen ne dootuma ko def tey kooku ji ko xale la sonnoon naa rek. kon daal bu ma la déggee ci wàllu alxuraan moom ku ci géeju nga am na loola ci yàlla. waaw am naa ci lu ma ci xam xam mën naa ci jàmm sama borom macha allah maa ngi sant sama borom te am naa ci ay jikko yoo xam ne a à 75 ans xam naa ni loolu moom accompagné. ndax alxuraan bi téye na ma ba du ma jëw. baqara ba naas. waaw du ma jëw du ma du ma du ma du lekk riba. Hmm? xaw ma kañaan du ma naafiq foo ma fekk mooy sama mandarga ba tax ndar ñëpp fonk ma inna allaha ma sadiqina lay demee fu ma dëgg fekk <laughs> ak ku mu mënti doon danaa la ko wax ci lu tegginu pour defar boo ma tooñee it làqu ji naa ca alxuraan inna laha ma sabirina waaye yàlla rek tax ndax du muñ pour nit damay muñ pour kàddu googu ma la wax yàlla moo tax may muñ dégg googu euh, ban saar ngay ne ci biir ba mu yàgg nga gis kenn ak sun borom xul wa allahu ahad parce que moom képp la lam yëlit wala mu la doon nga xulu ko li ma kaak lenn par ça euh, nga nekk koo xam ne dund nga boobu yar est-ce que nàmpatal nga ko sa njaboot mooy la dund ci yar. bu la yàlla maye ba nga dox <clears throat> dajeeg ñoom làmb leen mala la ngi fi sorewul làmb nga wax de. waaw làmb leen boo dajeeg mal rek làmb ko. wolof dana làmb daj. ka rek làmb leen. loo bëgg a wax foofu. waxuma samay doom. Mhm. doomu ndar boo dajal ci loolu. Mhm. boo ci bëggee xam dara rek toogal ak moom. mais ndar du Sénégal nag. mooy ndeyu Sénégal. ndax fa nga dëkk. déedéet. sax mooy li dëggu. Alaaji Malick ba mu jógee gaa yi fa ñëw. bindal. benn. sëñ Touba. ba mu songee xeex ak ñi nga xamee ni fitnaaloon nañ ko bëgg yàq la mu doon ndox ngir Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndar la ñëw fa lañ ko terale ba léegi ñaari rakaa yaa ngi taxaw. <laughs> Cheikh Nal Saad bu Habib. xayar surtout yonent bi direct. ba mu jógee fa mu cosaanoo ñëw ci biir Sénégal tante bu mu di stade Joseph Gaye bii nuy basket bi fi mu toog nii ñoom Limaamu Laay mboolem këru diine fi ne kenn ku ci nekk am nga dara ci biir dëkk. Euh, ci loolu la ñuy euh, seetaan benn élément boo xam ne dañuy ànd ak yow découvrir ko. bismillah liggéeykat la parce que munoo liggéey à partir de dix huit ans ba tey soixante dix ans yi tegal na chaque jour fajar ngay xëy dem liggéeyi donc euh, loolu mooy ñaar yi ma gën a marqué la. ci liggéeykat la man dama xippi nekk lu ndaw ma gis ko muy def théâtre buggul njabootam sori ko ñun dañoo dañoo fippu pour génn ñëw ñëw liggéey Ndakaaru mais bu doon sagoom dañuy nekk foofu saa bu nu yeewoo nooy ne suba ba ngoon jot loolu xam naa ko si moom dafay wax mu ni nit loo am te amuloo identité culturelle amul dara il entend par identité nga xam sa bopp xam yaay kan xam fi nga jóge xam li la war xam li la waru gis naa mu joxe muy joxe dépense ba tey ji si kër koo xam ni ñoom ñaar ñoo màggandoo kooku bu mu génnee àdduna ak léegi ëpp na ñaar fukki ak juróom saabu bu xëyee moo jox dépense waa kër googu gis naa mu jóg guddi dem defar ay sëy gis naa mu jóg guddi dem defar diggante papa ak doom wala papa ak yaay bu yaaxu sama papa yóbbu na ma police ci demal liggéey duma liggéey mu jëlee kaaru mu jëli kaaru police ñu takk ma ak ay mënoot yóbbu ma police ci di nga liggéey duma liggéey mu ñaar rek moo mën a jàng ba dee wala liggéey ba dee